liñ jaal famille bi ñaar dese ñoo am parce cinq personnes ñoo ne woon si biir kër gi si cinq personnes bi mu amoon ñaar ñoo xam ñoo ñooy mag yi keneen ki 64 ans keneen ki 94 ans ñoom ñaar rek ñoo si am ñoom ñoo si seen bakkan rot euh, gannaaw loolu ñëli yëpp amuñu benn inquiétude amuñu benn problème waaw mais nag au fond ça c'est un problème nationale, si je peux m'exprimer ainsi. Nous avons aujourd'hui, au niveau de la commune des Parcelles-Sénie, euh, dénombré 145 maisons dans cette situation. Nous, ce qu'on peut faire, c'est d'abord euh, interpeller les propriétaires. Et ça, on a déjà fait, ça, on a fait, déjà fait ce travail-là. Euh, à présent, on attend parce qu'on n'a pas quand même la légitimité de venir euh, démolir une maison sans pour autant qu'on puisse avoir une certaine légitimité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ça c'est une preuve. Il faut que les gens puissent comprendre qu'on le fait pas pour nous-mêmes, on le fait pareil pour eux. Donc tey jii loolu lay mën a wax encore tey jii Parcelles Assainies ñu ngi dénombré cent quarante cinq maisons cent quarante cinq bâtiments en état vraiment de délabrement très avancé c'est des risques donc tey jii situation boobu la ñu am Euh, ñun suñu warugal mooy toujours borom kër yi dañ leen di bind nee neen situation bi yu moo am seen kër li ngeen war a da ngeen ci war a génne ñu jox leen sommation lu ci des nag nit ki su bañee mën nañu yóbbu yoon yoon nag mooy yéexal mbiri yi moo tax parfois ngeen gis c'est pas parce que nit ñi bëgguñu daaneel mais fokk yoon may ñu ne ñu mar ngeen ko def ñu mën ko def sinon mënuñu ko def mais incha allah xam naa dans peu de temps il beaucoup de choses qu'on nañ am di waxtaan bu ñuy def accompagnement boo xam nécessaire boo xam dañu koy defar dañu koy àndil ñu mën a daaneel certains bâtiments yoo xam ne yàlla xam na ni loolu waru taxaw te yooyu bëri na fi te xam naa ni wax na si commune yëpp a am mais man sama commune moom concerné j'en ai demandé 145 incha allah on fera le nécessaire sur pétage merci merci